na ci reportage bu am solo cooweerlu Amir Abdoul Mbacké Sylla mhm. ñu ne un investisseur bu fi ñëwoon dugg na fi gis nañu que coow li dégg nañ ci Atepa Jalongal dégg nañ ci Cheikh Yérim Seck et tout ça nga nekk ci ci milieu bi aussi Abdou Aziz Fall. Mhm. nit ñi di jóge fu di ñëw gis nañ les influenceurs ñu ngi fii. Mhm. parfois ñu xëcc leen ci yenn mbir yi jéem leen ci dugal. ah coow li bari. Mhm. gisoon nañ fi fan yële ay influenceurs yoo xam woo dañ leen ci benn affaire xaw ma nan mu jur coow aussi gis nañ fi influenceurs yu bëri jamono ji aussi ñoom ñoom pro promouvoir li nga xam ne ñooy jeu de hasard yi ci réseaux sociaux yi. nga nekk ci millier bi Abdou Aziz Sarr nekk ci nag à fond ah dama bëgg yi xam ko yaa ngi ci <laughs> milieu bi business man nga en même temps euh, yàqu-yàqu yooyu dugg fii ci Sénégal actuellement. mais Amadou merci beaucoup pour cette question parce que il faut que nit ñi effectivement. war a xam ku si nekk sa cër lan la. surtout et eh, gis nga eh, y a beaucoup de Abdou. Amir Abdou Silla Mbacké ak Silla Mbacké bëri na ay tur tur bi sax dafa xaw a kii bi dafa bëri en a beaucoup ici au Sénégal xam nga tey ñooñu Sénégal maanaam dugg génn yomb na trop wala tey dem taxaw photo Trump ñëw jaay ko sénégalais dafa yomb mhm. et eh, tey nous ne sommes plus de l'antiquité tollootul jamono yi pour démasquer nit léegi comme bonjour et gis nga dafa am ñoo xamante ni naturellement dañu bëgg am am bu yomb. bu facile bi te tey boo ko amee moom mooy loolu. et te média média nekk yoon bi nga xam ne ne moo gën a facile. mais mais mais Amadou man j'ai parfois on m'invite à des rendez-vous yoo xamante ni c'est de ce genre yoo xamante ni pareil maanaam da ngay toog fi ngay toog. tu viens on t'invite jox la nga lekk jox la nga naan dalal la fu nooy waaw tegal la marché yoo xamante ne ñu ni la boo si génnee dans deux mois trois mois bon mën nga si am benn cent millions deux cent millions un milliard facile mu on le voit tout le temps on le voit tout le temps ñun ñi nga xamante ni comme ni nga ko waxee nous sommes des businessmen xam nañ comment ça se passe ailleurs donc on voit tout le temps de ce genre peut-être bii moo feeñ ah, mais dans les mm-hmm. jours à venir. mais chaque jour mu gis ku la woo proposé dama bëgg business bi dama bëgg projet bi au Sénégal ñëw nga fekk ni nga wax beneen affaire boo xamante ni gars yi ñu ngi koy def muy rapport ak marketing de réseau bi gars di def waaw da ngay joxe 1000 francs ñu jox la 5000 et cetera loolu amul fen sa n'existe nulle part. Mm-hmm. loolu moom la gars yi naan c'est des entreprises temporaires. c'est-à-dire marketing de réseau day juddoo pour objectif am pour un an. Mm-hmm. mais dañuy def benn chaîne chaîne boo xamante ne man sous forme de ce qu'on appelle parrainage. Mhm. man maay dugg nekk ci kaw man ak sama clique. waaw comprendre yow boo dugalee kenn yow di nga. dina dina dafay pourcentage bi et cetera mais alors que au finish. fu mu yam dafa yam ah, au final trois trois quatre personnes ñoom ñoo si bénéficié wu. Mhm. soo xoolee yi yi koy def yëpp si via des applications. rey nañ ci ay copains yu bari. waaw via des applications on a vu énormément beaucoup de beaucoup de beaucoup de plateformes yoo xamante ni c' était uniquement pour sa soo demee ba investissement bi bëri après nag si ngay jékki-jékki rek ñu dagg te ñi nekk si kaw. kenn du leen xam. coow li commencé. maanaam genre business yooyu xoolal li ma lay wax bu ne mooy initiateur bi kenn du nangu nekk initiateur lan ngay dégg kii mooy représentant bi kii moom moo fi nekk te ñooñu ñëpp amul dara lu leen liyee boo leen waxee contrat wala agrément wala anyway lu mu manti doon licence du la wax ni la dara la. waaw donc loolu ñuy continuer profité di sensibiliser suñu mbokk jeunes yi ñu xam ne rek boo loolu liggéeyul doo ko am quoi. bien sûr hmm. bien vraiment di di wax rek média ñu nekk ci média bi ñuy def très attention. Hmm.